ar de l'islam tey jii nag euh, ki nga xam ne moom moo di Serigne Gueye aussi daal di fas yéene amal li nga xam ne ni moom moo di rek sujet bu am importance ci mhm. li nga xam ne ni euh, moom moo di euh, sunu yonent yàlla instant waaye ku ne xam na ne aussi macha allah oustaz mi ñu fii dalal ni ki tey jii xam-xamam màcc na jëm ci wàll wi donc ci kanam rek ñoom ci ñaareelu pàcc émission bi ci la ñu koy amal ginnaaw gi dañu daal di dalal ki nga xam ne moom mooy invité bu Fatou bu Fatou Diouf ci rubrique royukaay sëñ ngi lay dalal di la bàyyi nga nële ci ak téléspectateurs yi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala wa imaami mursalin wa baadu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu ci àjjuma ji di leen ñaanal jàmm sutura ak xéwal fay nañu la bu baax di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi jàkkaarloo ñun dañuy seetaan mm-hmm. rawatina ci dëkk bu tedd ba ma jógee ñii ko wax njaarim muy dëkk bu Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal ñi fa nekk ñëpp di jàng alxuraan yan yàlla may ne alxuraan ju mokk waaye di jiital seen nuyoo bi suñu kilifa ga ma bàyyi gannaaw muy sëriñ Cheikh Tidiane Ahmad Guèye mm. ak mbooleem jàngalekat yi nekk ci moom mm. da ko dimbale sa jàngale ma ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen siyaar waaye di nuyu suñu eh, soxna si muy soxna Fatou di mm-hmm. soxnaay suñu xarit suñu soppee sëriñ Moodu mm-hmm. di ko ñaanal jàmm yal yàlla yàggal ko fi lool di ñaanal képp ko xam ne ñun ñoo bokk moom plateau bi mm-hmm. waaye di wax na ñëw nañ ci ëttu daara muy di fàtte si diñ fàtte mukk suñu kilifa ga muy sëy eh, Amin Niass di ko ñaanal yàlla fa mu tëdd yal yàlla yokk yërmande ndax ñun dafa bokk si ñun ndax tey fii ma toog mën naa wax ne njaboot ak daara ji mm. am na ci koo xam ne tey jël na doomam deretam tuddee ko Sidi Lamine Niass. te daara Ruqu Kokki la jàngi alxuraan. kon loolu day war ne daara Ruqu Kokki am nañ cofeel si kilifa gi muy Seydi Lamine Niass yal na yàlla yokk leer fam amiin yaa rabbi kon loolu mooy na yóbbu incha allah jërëjëf jërëjëf donc Fatou li ñu yàkkamtee découvrir bokk na ci daaray euh, Rukku Kokki yi ca Diourbel mu mel ni téléspectateurs yi aussi ñu koy xaar mhm. waaw Thioro moom la ñuy waxtaanee la grande journée du Saint Coran ca daara Rukku Kokki ca Diourbel mhm. euh, ñu war ko amal 8 janvier suñu Ousmane Touré euh, lan mooy daara Rukku Kokki parce que gis nañ moo kokki bi te bu ñu xalaatee kokki dañuy xalaat kokki bi nga xamante ne moo nekk fële ca Louga. Mhm. lan moo leen liyee ñoom ñaar. alhamdulilah rabil alamin tontu boobu moom incha allah dinaa sawar lool pour tontu ci. Mhm. Euh, soxna Fatou daara ruq kokki li ko indi mooy suñu mag ñi baax ñi nga xam ne yàlla dogal na ñoom ñoo sañ ci daara ci mhm. ñi ngi jàngee kokke si sëñ ma saqiloo radiyallahu anhu ñu ngi ko ñaanal yàlla fa tëdd. yan yàlla yeesal yërmande ci koom. amiin yàlla mu nekk kilifa koo xam ne kilifa ko mat kilifa la. wallaay yàlla dogal tey suñu mag ñooñu nekk fa jànge fa jógee fa ñëw njaarim sañ ci daara ci ngir yaatal liggéeyam sañ ma sa xilloo hmm. ba ñuy ñëw ñoom ñu ngi tolloon ci fanweeri nit ak lu topp. Hmm. bañ fay jógee kenn nit rek moo fa mokkaloon alxuraan muy ñii ko wax Cheikh Aboubacar Diallo. mu ngi dëkk Saalum si région Kaolack département Nioro arrondissement Médina Sabax bi mu ñëwee nag ba ñëwee ba agsi pour matal seen kóllëre ak fañ jógee ñi ñëw ba ñëwee njaarim abbu kër toog fa di jàngale alquran ñu ne ñun de kon comme kokke lañ ne kon Cheikh Aboubacar Ndiallo foofu la mokkale alquran léegi ñiy wax ruq léegi ñuy jël ko nag lënkale ko ak kokke doo tax ñu ne ruq kokke macha allah mm. d'accord loolu moo indi turu ruq kokke macha allah ba ñëwee nag ñu ñëw njaareem dal fa fekk fa ki nga xam ne nii mooy sëñ ba Cissé nekk doom si sëñ Mor Mbay Cissé mm. ku wax sëñ Mor Mbay Cissé xam ko ci alquran macha allah may ñëwee ñi xam ne dëkk soo fa ñëwee mënoo ñàkk kilifa léegi fay ne loo tax ñu jëloon sëñ Bat Cissé mu nekk seen kilifa soxna Fatou lii moo indi turu daara ruq kokke na mën nañoo wax ne ne dara ko kokki bi. ci kokki la bàyyi ko ah, man mm-hmm. mm-hmm. euh, année lañ ko créé. waaw ah, daara ji soxna Fatou ñu ko an ñu ngi ko créé 89. Euh, mm. lañ créé daara ji. Mm. Euh, ci Njaaréem. Mm. incha mm-hmm. allah. 1989 waaw 1989. macha allah mel na ni kokki. ci génn ay ndongo daara yoo xam ne dañ fay mokkale alxuraan. alhamdulilah. Hmm. Euh, pour ma gën a jaatal foofu. Hmm. gis nga alhamdulilah gis nga daara ji yaa ngi gis mbooloo mi. Hmm. waaw yaakaar naa ne tey mbooloo mu toll nii. macha allah dañ koy sos ñu toll si fanweeri nit ak lu topp. fii may wax ak yow la nekk daara ji ëpp na 1000 personnes. ña fa mokkale alxuraan toll nañ si ay téeméeri téeméeri nit. ñoo xam ne nii tey ñii ay imaam leen ñoo xam ne nii tey ñii ay sëriñ daara leen macha boo dem région boo dem laa wax ci Sénégal mhm. da nga fa fekk ku taxawal daara koo xam ne kok ruq kokki gi la nampi ci lu wér kon 89 lañ ko sos yàlla dogal tey fii may wax ak yéen lu ëpp 1000 personnes ñu ngi ca daara ja. mode d'apprentissage bi dañuy fay ou bien dafa gratuit. déedéet alhamdulilah. Mhm. xam nga suñu sëriñ bi sëñ Moussa Xirlo. Mhm. Euh, bi mu taxawalee kokke sëriñam ba wax na ko demal kokke nga taxawal daara. Mhm. nga jàngale te yàlla tax moom ba mu ñëwee dafa ñëw taxawal daara ja. da jàngale ngir yàlla. mu ne man sëñ Moussa Xirlo su ma amoon li ma gën a. képp ku mu indil sa doom dama koy jàngal mhm. wëlbatiku di fay way juram dina maanaam di fay xale bi te boo mokkalee ñu gisee waat bi biñ gis waat ba yow ma ko yàq Cheikh Aboubacar ñu jàll ci mbaaxam mm-hmm. nampi sëñ mu saqiloo mu ñëw samp daara ruq kokki mu ne man de xàmmeewuma sant mm. xàmmeewuma askan ku ma xàmme mooy ki bëgg a jàng alxuraan ñëwal ma jàngale alxuraan ndax sama sëriñ bi lii la ma nàmpaloon amul kenn koo xam ne yaa ngi jànge ruq kokki ñii ngay fay benn dërëm amul te li si gën a yéeme sax soxna Fatou foo ma yokkal fi tuuti mm-hmm. mooy xam naa dañ ci ñëw mooy ñaata ñoom mokkal ci at mi mm-hmm. keroog bañ toogee di réunion mm-hmm. ñi bëgg xale yi conférence bi ñuy waat la euh, ñi ñiy wàcc le huit cent pour xale yi liñ sol ñi dajale jàngalekat yi na leen léegi comme xale yi mokkal nañ te il faut ñu am yére yu bees yu ñu sol mhm. te amaguñ koo xam ne nii dana dana jël encagement bi pour solal xale yi neen delloo si seen parents yi woo leen ñi jëndal seen seen doomu yére am na ñoo xam ne dañ ne man de xale ñu sama xale yi ñu bëri xaw ma seen parents yi dañ ñëwee si daara ji ba léegi suma jokkoo seen parents yi kon yaakaar naa loolu njàngale te ngir yàlla mënu ko weesu wallaahi donc nan ngeen di def pour dundal leen waaye léegi nag loolu damay dellu ci waa njaarim mm-hmm. da leen sant di leen gërëm ni ko sëñ bi di waxee mm-hmm. soxna Coro mm-hmm. xam nga ne lu toll ni mille personnes nga amee ko ci dëkk da leen jàngal xiifuñ maruñ kon gàcci ngaalaam ak waa dëkk ba xale yi xale yi soo gisee xale yi niñ mel nii nga xam ne tilimuñ wallaay boo gisee xale yi place bi ñuy jàngee xam ne place bu set la boo gisee xale yi fi ñu toog nga xam ne ñu ngi si condition yu baax loolu yëpp waa dëkk ba la dëkk ba xam nga ni ñu def dañuy jël xale bu ne kër gu ne jël ab dongo doomoo ko ñu ndey daara ñi muy ndey daara hmm. di leen tibbal añ di leen tibbal reer am na ñoo xam ne dañuy dem ba yor lu mat ñaari xale dama ciy dégg am ñu naan sama kër meer sama kër meer loolu mooy sama kër meer ndeysaan léegi yàlla dafay dogal yàlla yàlla dafa dogal am na ñoo xam ne léegoo leen nga toog benn fan gisoo xale hmm. nga gis yaay daaraam ndeysaan jiital ko téye su ordonnance. ñëw ne ah sama dong bi de daa feebaroon démb nanga moo ko loo yóbbu naa ko hôpital ba fañ neen ko garab yaa ngi ni nii ak nii da koy naanee. jox joxe gannaaw dem. kon gàcc gàllama waa daara waa waa waa njaarim foofu sa entreprise ma dugg fa mooy man daara ja laa jàngi alxuraan ci même daara ji même daara ji quatre vingt mhm. ma ñëw fa bi ma ko ñëwee comme ni xale yi def nii laa doon def di yalwaan. waaw. yàlla doxal tey fii daara ji nekk nii ñoo ko moom seen bopp. macha allah sama yaay daara. macha ma dama daan jël sama bool di dem mu may tibbal añ. waaw maa ngi koy nuyu bu baax. muy yaay ju mu bëgg. muy Adja Daba Seck. di nuyu njabootam. di ko sargal. Mhm. bi ma coro dama laa ñëw di indi sama bool mu ñëwee teg mu tibbal ma. waaw benn suur mu woo mu ñëw na ma Ousmane ma ngaa mu ne pour indi ci sa bool si kër gi. dama laa xool. jàppee la comme doom ju ma jural suma bopp. dama bëgg li ma yàlla di sédd su ma ko tiimee sama njaboot gi nga ñëw bokk man li ma li nga xam ne moom laa te mu bokk sama njaboot. xam nga ab dongo daara day am kersa. Mm-hmm. dama naan toog ba añ jotee jànq bi ñëw na ma ana Ousmane ma daw dem laaxuti ci. pour am kersa sukk di bokk ak ñoom. Mm-hmm. ndeysaan. ñu mujj ga ma commencé di ko miin di ko miin ba yàlla dogal bi ma mokkalee alxuraan boo ma ñëwee sa kër ga. doom a xàmme ak doom yu mu jur tey jii ñii boo ñëwoon sa kër gi day toog si lalam bi ma toog bu ma ñëwee mu ne ma kaay toog sama wet maa ngi koy ñaanal wér di sàkku ñëpp ñaanal waaye eh, soxna coro eh, soxna soosu hmm. dafa def lu hmm. dafa def lu mag hmm. dafa teral alxuraan tabarakallah du ko réccu de xam nga nan la teralee alxuraan daara ji dañu nekkoon si ay conditions yu métti quatre-vingt-neuf ñi ñëw ñi ñëw dal njaarim daan dugg ci kër yu eggut mm-hmm. léegi-léeg ndeysaan ñi ñu jël suñu xaalis suñu deux cent mille wala suñu trois cent mille wala suñu cent cinquante mille defal suñu mbaari gattax mm-hmm. defal suñu cinq mm-hmm. defal suñu foos am fa deux mois trois mois borom kër gi ñoom dama ko soxla génn leen ñu jaaxle yàlla doxal man de moom yàgg ma ñëw ne ko yaay booy mu ne ma naam man ne ko ñu de dañuy soxla terrain mu ne ma ah ma ne ko waaw fekkatoo ne ngàcc ngalam ak ay doomam. Hmm. ba taari ñi fi gis génn bi yàlla dogalee ñi génn ñoo jëlaat seen poste di cotiser di di dajale pour bëgg daara ji ñu am dëkkuwaay seen seen dëkkuwaay bopp. bi mu ñëwee waxtaan ak moom mun na ma Ousmane am naa pàkk boo xam ne dama koy jaay. dem leen ngeen seet ko su ngeen su leen dooyee ma jaay leen ko. Hmm. yàlla dogal ma dem ba egg gis pàkk bi. Hmm. lii may wax man maa ko dund. waaw ma ñëw bu ma ñëwee ne ko gis naa ko. man ne ko ñaata mu ne ma un million. ba ñëwee nu daara ji toll ñu xam ne benn pàkk bi arrangé wu daara ji mm-hmm. moom tam mu am keneen kum ma booleel mm-hmm. Mm-hmm. kooku jaay ñi moom tam bosom keroog bi may fay xaalis bi xaw ma pàkk ndax ma ñun boo liñ jàpp mooy comme ñu bokk benn secteur bi nekk rek amul jafe-jafe biñ defee fii daara def fee dëkkuwaay fay naa xaalis bi te pàkk bi bi nga xam ne moom laa fay xaalis bi xaw xaw ma fi pàkk bi nekk bi ma ñëwee na ko maire yow de yaa si des mu ne waaw ma ne ko léegi dañ fas yéene pour fay wallaahi ñi ngi añ ba jóg mu jóg toog si fauteuil bi na ma Ousmane ma ne ko naam mu ni ma tey daara jii pàkk bi mu lañ ko jaay li ngeen ko doyee ma ne ko jàng alquran mhm. mu ni ma jàng alquran rek ma ne ko waaw ma ne ko fekk jant baa ngay fekk di so mhm. alquran rek lay doon mhm. mu ni ma jaayatuma leen hmm? Ousmane un million neex na lool wallaay waaye mu jox naa ko alxuraan. alhamdulilah Ousmane man fi ma fi ma toog nii kër gi ma nekk doy ni ma sëkk. ak man ak sama njaboot. gis naa ngeen nekk ci koñ bi am yar am teggiin lépp lu leen war a yéen ci kon naa leen ko jox te yàlla tax. un million bi su ma ko jëlee léegi tey mu jeex waxtaanu ci kenn. mu ne ma ndax mën naa am su ma ci waxtaanee ay nit léegi tey ñu ne ma ah tey nga ko defee nangam. Hmm. man ànd ak moom dem ba Kadaas. mu dindi mu génn turu Rokhaya Seck def fa turu Daara Rokhokokki. bañ demee ba àgg. Mm-hmm. yàlla la defal. ñi dem ñaari téere yàlla dog ñaar yàlla dogal mu nekk 63 ak 64 ñaari téere yi taxawoo. Ah, macha allah loolu gën suñu borom. gën suñu borom lu yàlla def léegi nag bu ñu am leneen lu si dooleeku. foofu laay ah. kii ngeen continuer question yi. Mm-hmm. ñaari terrain xam nga dañ am. Mm-hmm. ñu demoon yàgg daara ji xadaat ñu am beneen terrain bu taxawoo ak ñun. ñu ñëw si comme nit ñëwee wala fajiri nañ ko amee woon si si FM yaa nañ am lu raw loolu fii. amiin yaa rabbi te yaakaar nañ ko fii. incha allah ndax fii nii ëtt la muy ëtt diine l'islam. le 8 janvier. waaw léegi. 8 janvier ngeen nar a amal grande nuit. Mm. li nga xamante ne mooy rukk daara kokki boobu. Mm. lan moo waral li nga xamante ne mooy guddi boobu ak programme bi ngeen fa war a amal. allah mm. xam naa ne nga may ma tuuti dama tëjee foofu ñëw si 800 bi. ñaan naa leen ko rek. ndax fii nii foofu dafa am solo. ndax terrain boobu. dafa yàlla dogal bañ demee foofu ñu waxtaanee ko dafa am ku déglu suñu kàddu dëkk ko bi émission bi jeexee mu woote téléphone laaj suñu numéro téléphone mu ne pàkk boobu nañ ko laaj ñaata lay jaar waaw dañ ko laajtee hmm. ba xam ñaata lay jaar mu nekk un million sept cent cinquante mille hmm. moom mu dugal ñu deux millions na jënd leen ko terrain bi ñu ne ko ñëw a seet si ko mu ne déedéet dama dama ñubatoon ci sama addina na ma yàlla wan foo xam ne su ma fa dugalee sama alal boo liggéey mu fayee ma ko àjjana ma dégg leen sama xel dem sa sama sama xol tooy si yéen kon yàlla la moo tax ma def hmm. mu ne yàlla dogal ne sax man fi may wax ak yéen gisu ma dama damaa sëgg suma ma ñëwoon du ko gis mu ngi dëkk Louga ñu ngi koy nuyu à passage di nuyu ak njabootam kon tey kon foofu laay kee ma ñëw si bis lii moo wax yëpp hmm. moo waral nag ñu ne at mu jot kon hmm. ñun ñi génnee ci daara ji ak ñu bëgg alquran. Mhm. mille personnes bëri na lool. Mhm. condition yi ñuy dundi métti na lool. ñu ne nañ seet jullit mhm. comme bi yonent bi di génn àddina ñaar la bàyyi woon. muy alquran ak sunna. na mu wax ne. xayrakum man ta'allama qur'ana wa 'allamahu ñi gën sama xeet mooy ñu jàng alquran ba noppi di ko jàngale. am benn mbokk mu baax muy wax ne. xayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu duut ku toog sa daara ja mhm. waaye kii dimbale ñu toog sa daara ji ñu ngi sa bopp leeta tax ñu ñu fas yéene an mu jot ñi dajale ay ndimbal yu bari yóbbul ko donge hmm. loolu mooy waral at mu jot ñi ñu am bis bi ñu fay. Hmm. Hmm. ren nag ñu jàpp ko le huit cent huit incha allah. parce que ni dajee njaarim ñun ñëpp. ngir lan ngir delloo njukkal alquran waaye ngir lan lu waay am. lu mënta doon. loo xam ni daara soxla na ko wala lu jëm si wàllu dëkkuwaay ndax taraawo yi ba léegi ñu ngi ca mhm. mu bari lool mu tëñi